alaaji ndox yu salte ndox yu xeeñ. fëkk ci biir kër yi. ah waaw. te ci mbedd mi la yemoon. impacté yaa ngi nii toll nañ ci ñeent fukki famille ak juróom. Mansour Faye amaloon na réunion. Mm-hmm. ba ne woon président Macky Sall joxe woon na ordre. Mm-hmm. ci ñu jublu ci léeg-léeg France daal di xiddeen. Chimère. Mm-hmm. jox ñu gars euh, man Papa Ndiaye laa tudd di secretaire général collectif bi. mais également du conseil municipal. tey yokk ci euh, par rapport. waa li mu wax nii kenn mënatu cee teg dara xanaa liñ ciy teg rek parce que wax na ko ci introduction le président de la république mooy président de tous les sénégalais c'est lui qui a la charge de protéger la population et de protéger leur bien ci par rapport à cela la ñu koy ñaan. lui le président de la République mu jël ce problème en charge et si je me rappelle mos nañoo assister à une réunion au niveau de King Fahd après étude yi nga xam ne un cabinet français moo ko defoon à l'époque Mansour Faye était le président était le ministre de l'assainissement c'est lui qui a convoqué et les collectifs et l'ensemble des autorités en présence du directeur de l'ONAS et ses techniciens pour dire que le président Macky Sall pour wax ne président Macky Sall instruire na ñun pour que ñu génnee ñu génne le collecteur teg ko ci mbedd mi alors am na tronçon bu ñu commencé woon bu jógee euh, Saint Saint-Pierre ñëw ba mosquée Toucouleur ñu amoon espoir ne loolu dina continuer mais boobu ba léegi ñu ngi xaar ci loolu dañu waxoon ne day continuer longer kii bi jaar boori autoroute ñun génn complètement euh, kër yi génn nekk ci voie publique bi donc ñuy rappeler le président de la république que ces instructions yooyu mu joxoon ba nga xam ne apaisé woon nañu ñu commencé di nelawaat ah mu jàpp ci yéegalaat ko doxee des institutions à ses ministres pour que vraiment ñu jàppale ñu ci loolu nga xam ne moom président moo ko waxoon pour soulager la population ñu di ko remercier nag. parce que waaw ndax fi mu ne dafa jàmp ñu ngi koy remercier bu baax a baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla mu jàppale ñu sur ce problème la parce que moom rek moo ci mun a jàpp waaw bu ci jàppul bu ñu bàyyee avec les autorités là ñoom du ñu sax tontu. bu leen bindee duñu la sontu duñu la faale amuñu ci benn respect loolu moo tax nag ñun en tant que sénégalais ñu bëgg le président de la république li mu joxoon instruction mu yi waxaat ko pour nit ñi jàppale ñu pour que tronçon boobu ñu commencé woon ñu continuer ko mu génn kër yi dem waagu ñaay. loolu 2015 euh, la woon. 2015 rencontre bi 2015 la woon. 2017 ñu commencé les travaux mais boobu ba léegi gisatuñu gisatuñu benn kii boo xam ne jëmmati na ci affaire bi ci ni mu ko waxee aussi y a des projets yoo xam ne def nañ ko fi entre temps yoo xam ne def nañ ci ay milliards alors que par rapport au coût bi nga xam ne buñ ko defee ci ci collecteur bi rek mu sauver ay bakkan sauver Dakar parce que ñoom ñoo wax ne bis collecteur bi explosé trois cent mille âmes dina dina décédé waaw ah, nag bu jógee ci population Dakar lan moo fay desati ñuy ñaan le président de la République mu taxawal ñu ci problème bi xam ne ñun nous sommes des Sénégalais et nous sommes derrière lui loolu la ñu ci loolu laa ci doon dolli. Ousmane di gërëm borom kër gi di ko ñaanal ci occasion bi mu ñu jox ah pour ñu ñëw expliquer au grand public euh, li nga xam ne moo xew di ko ñaanal no moom borom kër gi euh, gëm-gëmam gëm-gëmam pas-pasam yàlla na ko yàlla mottali. waaw man maa ngi tudd nag euh, Kito Karama man maay coordonnateur du collectif Waagu Ñaay et en même temps di coordonné collectif Waagu Ñaay ak HLM. tey mu mel ne ni euh, li ngeen doon jàmbat dafa dikkaat ci zone boobu noonu. voilà euh, problème bi moo di que depuis problème bi premier affaissement bi amee en deux mille onze autorités yi promettre que ne daañu trouver solution pour collecteur bi. boobu ba léegi ñun population yi dégguñu ci dara ñoom seen biir ñooy daje di wax ñun xamuñu lan la ñu nar ak lan lu ñu narul ñun suñu nelaw euh, doyatul loolu weesu mu amaat beneen màbb bu am biir euh, waagu ñaay ci benn kër loolu nag indi jaaxare ak tiitaange parce bu jëkkoon affaissement yi ci mbedd mi la woon léegi mi ngi commencé dugg ci kër yi ah yàlla def na ba bakkan roccu ci mais kenn mënul xam li xew déwén li xew ëllëg donc moo taxoon ñu dellu ci autorités yi wax leen que jot na quand même 2011 ba 2021 jot na ñu wax ñu lan la ñu naar pour que ñun ñu mën euh, am nelaw yu doy. tey jii euh, boobu le collecteur. yan gox la laal collecteur bi mi ngi comme ni ko waxee collecteur Hann Fann la mi ngi commencé eh, Hann jëm Fann mi ngi jaar HLM waagu ñaay bopp zone B eh, point E université donc ñoo yëpp la laaj. mais waaw waaw xolu ndakaaru la boo seetee collecteur bi rôle central la sax la am parce que bépp ndox bu bon buy wal diggante HLM Sicap waagu ñaay fa lay jaar bés bu collecteur boobu daful liggéeyam coow dina jib fu ñu ko foogul dem beeg dikk bi dina sooxe donc moo tax ñun en tant que population ñu ne autorité dañ ci jóg liggéey ko def nañu ay étude trouvé nañu sax solution bi nga xam ne mooy solution bi nga xam ne moo yenu maanaa. étude ñoom la lañ voilà étude bi euh, mooy wane que ne parce que déjà il faut reconnaître une chose problème collecteur bi euh, collecteur bi avant indépendance la fa nekk si ñun waagu ñaay ñu ngi ko sanc en mille neuf cent cinquante six. donc euh, société bu ñu wooyee groupement foncier moom moo ko tabax ba mu koy tabax collecteur baa nga fa woon ñoom ñu tabax kay kër ci kaw collecteur bi jaay ko ñun suñuy pap y a quarante cinq familles ci biir Waaguñaa qui sont impactées xam nga kooku musiba la. mais ci diggante bi lan moo tax études yi démontré foofu noonu am na collecteur ba pare ñu bëgg ci tegaat yeneen cité ci diggante bi comme yu mel ne ay HLM fi yenn wàll wàll bi ak yeneen gox. mais moi je dis kooku négligence négligence étatique la parce que société buy ñëw di tabax de soumettre projet am autorité yi ñoom ñu valider ko ne mën nga tabax fii autorité yi balaa ñu koy valider dañuy saytu seet negam fii ñuy tabax nii est-ce que amul benn projet buñ fi nar ëllëg parce que ci seen planification prévoir nañ fa peut-être ay autoroute ay euh, yeneen euh, ay ay sites yoo xam ne yi utilité publique la ci biir loolu mën daañu wax daañu gis ne que fii am na collecteur ñu ne bon léegi yow bul tabax fii parce que nii lañ fi naar tabaxal fële mais loolu amul ñoom dañoo valider projet bi société yi tabax nag 2011 ñu 60 ans après ñu doog a xam ne collecteur a ngi fii xam nga kooku doy na waar. négligence totale maintenant nag li doy waar ci mbir ni dañoo bëggoon ñëw jël responsabilité boobu teg ko suñu kaw. ne ñun ñoo tabax ci kaw collecteur bi. tey ñaar ñaata famille la impacté. tey ji yaa quarante cinq famille ñoo nekk ci emprise collecteur bi rien que waa Guñaay waxuma HLM je suis qu'il y a autant waxuma bopp waxuma fenêtre donc aujourd'hui quarante cinq familles ci biir waagu Guñaay ñoo impacté quarante cinq familles yoo xam ne seen nelaw matatu te collecteur bi bu ñu ko coono yi muy jur ci biir waagu ñaay dina ëpp quarante dina dépassé quarante cinq famille yooyu dina ñëw ba ci HLM dina ñëw ba ci SICAP dina jaxase parce que ndox dootul dem tali yi dañuy inondé dem beeg dikk bi dina sooxe sans compter jàngoro yu muy mën a jur ci gannaaw ah ndox bu salte lekk lay jur c'est le terreau euh, fertile pour toutes les maladies de mensal choléra ak lu ci donc moo tax ñun population ñu xeex pour mu am mais affaire bi état sax ma ko war a def euh, xeexam parce que ci suñu analyse information yu jot a am pour defar collecteur bi il faut soixante six milliards pour ñu defar ko soixante six milliards yooyu fi mu nekk projet deux mille onze laay wax de euh, euh, mille neuf cent voilà donc mën nañu wax ne que amul intérêt yi parce que ci diggante bi gis nañu ay projet yu am solo yu fi def euh, TER bi ñëw na fi euh, mille milliards ak lu topp BRT ñëw na fi trois cent milliards ak lu topp soixante six milliards mën ñu ko génne ay bakken mën ñu ko génne pour defar collecteur bi ça veut dire que ñoru te ñoom euh, waxtaan ngeen mais waxu joxu joxuñ benn proposition kenn waxuñu tey ñu liñ ci dégg dégg lañ ci am parce que mënu ma ko mënu wax mënu ma waat ne loolu la ñuy def dégg biñ ci am moo dikk ñoom solution bi ñu retenir mooy contournement contournement nag boo ko déggee moo di que da ngay jël collecteur bi bi jaar ci biir kër yi kër yi nga génnee ko teg ko ci yoon gi bu ko defee nit yi am jàmm donc collecteur bu màgget bi ñu fatt ko xam ne jàmm ne ñooy. kon su boobaa borom kër yooyu dañu fay kër duñ fa jógee. parce que collecteur bi génn na kër yi nam ci mbedd mi borom kër yi mën nañu nekk seen kër daf leen neex donc ñëpp am jàmm euh, état am jàmm ñun ñun ñu am jàmm te li ci doy waar ci mbir mi bi affaissement bi amee résement ci biir waagu ñaay famille bi nangu na ci pression euh, administration génn kër gi pour ñu defar ko. et si dimbali suñu maire yi ñoom jàppale nañu famille bi jox leen aide pour euh, six mois de loyer mais affaire bi nguur gi nee na moom du dimbali famille bi pour ñu relogé leen le temps que ñu defar travaux yi parce que depuis sept septembre la affaire bi amee deux mille euh, vingt ba ci njoon yàlla tey muy six mois liggéey bi commencé gul ñu ne léegi dañuy toj kër gi ñu ne ah. ok amul problème mën ngeen toj mais ci kaw ngeen delloo kër gi nu mu meloon balaa ngeen di liggéey ne dee duñ ko def ñoom dañoo bëgg toj kër gi leef seen liggéey duñ ko delloo nu meloon génnee famille bi mu débrouiller pour dem loger wu ñoom duñ ko jàppale xam nga loolu yéen maanaa ci ko tooñ no xam nga nag mbir mi lay ndur ñun bi loolu amee ñu ne loolu mënuñu ko nangu. ñu bind président de la république parce que dañ ne suñu suñu yaakaar président de la république xamul li xew peut-être que waxuñu ko dëgg yëpp ci mbir mi ñu bind ko pour expliquer li am pour expliquer autorité lan lañu bëgg a def wan ko ne ko ñun ànduñu ci parce que état mooy koo xam ne kii moo war sàmm askan bi bu état bu ñuy faagaagal askan bi ci turu état la def lay nuru moo tax ñu bind président de la république sensibiliser ko. ça fait maintenant euh, plus d'une semaine ñu ngi déglu pour xam ban tontu la ñuy am. ba fii dara. ba fii dara mais nag population bi tamit comme ñun am wóolu nañu suñu suñ ñu ñu jiite te yaakaar nañu daañu def euh, lu méngook yoon moo tax ñu am euh, ñu rafet njott na rek yëf yi na sotti nañ ko bëggee parce que am na yoo xam ne bëgg am na foo xam ne fi bëgguñu fa yàgg ñaanuñu yàlla àgg fa. dañu bëgg rek ñu saafara mbir bi nu mu gënee ci ñëpp loolu daal mooy suñu mbabat fi mu nekk. jërëjëf merci Pape. Ah, en tout daal ñoom daal alaaj seen collectif bi daal yëglu nañu. waaw yëglu nañu de. de. Mm-hmm. yëglu nañ de. Mm-hmm. wax nañ de. Mm-hmm. waaw wax nañ nag buñ fi nekk mukk naan ay réunion boobu amul woon ak ñun yëguñu ko woon. yëglu nañu de. luy jot nag jot na ginnaaw de. dëgg yàlla. ah ah, ah. alaaji. Mm. yëglu nañu de. Mm. Hmm, yëglu nañ de yëglu nañu daal <coughs> waaw man nag loo xam ne alaaji dafay nekkoon depuis avant indépendance ba léegi. dëgg yàlla waaw moom moom moom. te xam nga lan moo gën a garaaw ci xeetu rigol yooyu alaaji. Mm-hmm. muy population bi. bi ko fi tubaab bi di def. waaw nit ñi tollu ñu woon nii. waaw kër yi tollu ñu woon nii. Mm-hmm. waa mii buy dem di yokk yow état yow doo yokk sa loxo. ok wax dëgg yàlla. dëgg yàlla ñaata ndox ñoo daan jaar foofu. dëgg yàlla par rapport ak euh, mètre cube yi fay jaar tey. yàgg na de yàgg na de yàgg na de. ñoom ci lañ fàttaliku ñeenti at avant ñu am indépendance. dëkkuwaay bi sax. ba ñu am indépendance ba am juróom-benn fukki ak benn. xanaa loo kon loolu kon xanaa léegi mooy mooy juróom-benn fukki at ak juróom. waaw ak dëkkuwaay bi saxit nag xam naa ni moom. Ah. dañoo xamul woon ni xëy na nii lay mujj mel mais. en tout cas day en tout cas day réew mi daal liñ fi war a wax bari na de. dëgg ah! te day di compliqué nag ci ñoom wax dëgg yàlla. Ah! compliqué na kay. waaw ah, waaw compliqué ci ñoom de. Hmm, daal na daal ñu ngi yëglu de te te nag dinañ dem ba ne demoon li des. waaw fa la mbir ma jaaree woon rek léwu wa illaa demoon nañ tës ah en tout cas daal jaar nañ fi uh-huh. waaw kilifa yi nag fi mu nekk nii nag alaaj hmm? wax nañ leen seen bopp. dégg nañ ko de. dégg nañ ko it nag nañ jublu ci lii moo gën jublu ci lii voilà. Hmm. aywa kon nag mbokk yi grand plateau te jii ci guddi. Hmm. waaw mi ngi noonu nag euh, fas yéene. dalal Ahmed Khalifa Niass. bu subaa jàmm nag euh, suba mooy mooy mooy 17 avril bi. waaw waaw de mooy 17 bi. waaw mooy 17 avril bi kon spécial Cheikh bi kon suba la. Richard hmm. maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi nag euh, mbokk taalibe yëpp waaw kay. Sëriñ Bassirou ñu ngi lay nuyu. Oh, di ñaanal jëmm ju tedd ji yàgg te wér. amiin amiin Mbacké. fi yàgg te wér. Sëriñ Abdou Karim mi ngi lay sant di gërëm bu wér. di ñaanal euh, waaw di ñaanal waa kër gi yëpp. min yaa rabbal alamin min yaa rabbal alamin njabootu Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu yëpp. min yaa rabbal alamin min yaa rabbal alamin njabootu ko Seydina Limamou Laye. Mhm. almahdiyu gi di nuyu tamit waa kër Baye Niass di nuyu waa Léona. Kaolack waaw di nuyu vraiment. ak kër Abbas Sall di nuyu. Alu Sekken Canaba waaw kay Alu Sekken Canaba ak waa kër Njegen Njegen yi ca Thiès. Thiès di nuyu nag. Euh, Kunta Kunta yëpp. njabootu Cheikh Omar. voilà di nuyu njabootu Cheikh Omar gi. Mhm. Ah, taal taal taal ñu ngi leen di nuyu. Mhm. Eh, Thierno Bachir. ci Louga alaaji ñu ngi koy nuyu. Mm, Thierno tamit eh, suñu mbokku xaadir yëpp. nuyu waa Canaba. kuntu kuntu yi fële ci Ndiassane gépp. Mhm. waaw waa Ndiassane ndeysaan Abi Ndiaye. ak sama jigéen ba Ndeye Fatou bu ñoo dem ci sama maam yooyu rek. ndeysaan di ma koy yëgal nag. lay ndeysaan waa mm-hmm. Ndiassane gépp daal ñu ngi leen nuyu. ndeysaan waaw nuyu daal kër kilifa diine yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp alaaji nuyu tamit. jabatu euh, alxaaji Rawaan Ngom. waaw kay. ci jiital Baye ah, Ngom. voilà suñu way jur bu baax woowu ndeysaan bala xam-xam lool. waa Paal. Ah, waaw professeur Ngom. tamit euh, suñu mbokk chrétien yi waa jàngu bi. walaay ndeysaan ak seen koor gi nga xam ne moom la ñu génn. Ah, lépp luñ ci ñaan yàlla na ko borom bi nangu. Abdou Jacques Seck. waaw koor gi nga xam ne tamit la euh, dugg. ñun jullit yi. lépp luñ ci ñaan yàlla na ko borom bi nangu. barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw vraiment yal na yàlla dolli xewal gi amiin yaa rabbal aalamiin alaaji daal lii moo ñu jik li li nga xam ne di lii moo ñu jik réew mi ànd ak dala tax ñu toog di waxtaan ba nit ñi di reetaan wallaahi waaw réew mi ànd ak dal jàmm am fi moo ñu jik moo waral saay bu ñu xëyee yegg ay xabaar yu wóor te dëggu def mhm. ko teeyaayu bakkan dugal ci ay fo reetaan nit ñi waaw waaw xam nga comité keroog dafa am benn professeur alaaj waaw docteur Thiam. Mhm. dafa woo Mamadou Fofana. mais uh-huh. kon ñun dañuy jàngale. Mhm. communication. Mhm. ci institut yi ak ci université waaye ni ñoom Ahmed Aidara. di communiquer. ñun dañ ciy jël sax di ci jàngale. dañ ciy jël di ci jàngale. façon communication alaaj li sama baay doon wax ne boo demee ci dëkk. soppiku ngénte boo demee ci ngénte soppiku dëj mu ne la ah mu ne la je m'explique daal di toj expliquer la sabab mu wax lu ne ma hmm. ndax léegi-léegi alaaji nga dem ci dëj teg nit ñaari tiis seen wu bees wi nga indiwaat fa bu bees waneen wu bees léegi-léegi nga dem ci dëj nag wàcceel leen tiis wa ca hmm. waxtaan wa te yaa ngi leen di delloo ci yàlla de indi ay xissa yoo xam ne mbir mi mu gi nit ñi lu ñu muuru muuru yi dañuy bëgg di muuñ sax ci suuf te boo jëmee ñu bee rek maa ne di a wàcc wallaay la ko wax nga dem ci ngénte yi tëgg ya bari lool nga delloo leen fa yàlla ba gaa yi ànd ak retenu mhm. fit ya xaw a def tëf ndax la nga fa fekk tax du noonu. Mhm. waaw moo tax communication. solo waaw lu lu lu ama am solo la. ak ni ngay def tamit bay capter ñi nga xam ne ñoom ñoo lay déglu. déglu waaw saa su daal jéemal suufeel sa bopp. saa su ne jéemal yow mii lii nga ne nii ñi lay dégloo la ko gën a maîtriser. te boole leen ci ci li nga nekk. voilà gestion inclusive rek. waaw ñoo la ko gën a xam tamit teg sax. xam nga alaaji ngay def nii nit bind la message nga tudd ko. tooñ ko def na ko mbégte. bu rëy. jàllale nga message am. yàlla na yàlla dolli ah. jàmm ci réew mi ah. maa ngi nuyu baax Fama Ndiaye madame Sy. docteur a ngi dikk docteur a ngi dikk. voilà kon nag mbokk yi di leen jox kon dig daje altine incha allah. ak ah, ñi ba léegi yëpp dégg ngeen. réalisé cinquante huit sont revenus positifs soit un taux de positivité de 3,68%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons noté 21 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 37 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 24 cas dont 4 à Rufisque, 3 aux Parcelles Assainies, 2 à Ouakam et au Plateau, 1 aux Almadies, Diamniadio, HLM, Liberté 4, Liberté 6, Mamel, Mariste, Médina, Mermoz, Ngor, Pikine, Sacré-Cœur 3, Escate Urbam. Dans les autres régions, il a été dénombré 13 cas, dont 2 Mboro, Popenguine et Thiès, 1 à Goudiri, Kolda, Matam, Pout, Saint-Louis, Tivaouane et Ziguinchor. 67 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 16 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Deux décès ont e été enregistrés le jeudi 15 avril 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 39 664 ont été déclarés positifs, dont 38 410 guéris, 1087 décédés et donc 166 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt encore retenus dans nos services et à ceux qui dans les domiciles. Le ministère de Santé et sociale informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19, 379 900 personnes ont été vaccinées.